li tax mu yebal suufi nag mooy bisub Cheikh Rafal bii bisub Cheikh Ibra bu ñu ko waxee Sëriñ Tuubaa rek a tax ma nga ca biir Cheikh Ibra moo ànd ak Sëriñ Tuubaa te itam Cheikh Ibra du dem fenn tàndul ak Sëriñ Tuubaa Cheikh Sëriñ Tuubaa du dem tàndul ak Cheikh Ibra kon bis bii mi ngi ci biir. nee na kon sallallahu alayhi wa sallam mi gën ñëpp. mi ngi ci biir bis bi nag. kon nag. bis bi mooy lépp. li yaakaaroon fekk ko fi. li fi ba tax ñëw. li li fi yaakaaroon bi. li nu yaakaaroon ci bis bi ba tax nu ñëw. fekk na ko ko fi de. bi ci njëkk. bi ci njëkk. mooy taalibe gi. mooy taalibe gi. ndax xam ndax xam ne mooy alal yoon wi. nit ki nag alalam fu mu ko fekk. nit nag alalam fu mu ko fekk. dafay sawar a toog. dafay sawar a toog. du fa bëgg a jóg. du fa du fa bëgg a jóg mukk. loolu moom fekk nañ ko fi. ak rakkam yi mu àndal yëpp ak taalibe yi. ak doom yeeg rakk yeeg taalibe yi yëpp rek. kon ak sant nañ ñëpp. gërëm nañ leen gërëm nañ ñëpp it nag. li am solo nag mooy ngërëm. jëf lu mu rëy rëy. ak lu mu bari bari. te amuloo ngërëm. amul solo waaye lu mu tuuti tuuti te am ngërëm lépp a nga ca biir Cheikh Ibrahima mii ñuy wax daa am daa am ngërëmal Serigne Touba moo tax mel ni mu mel sëriñ bii ngay gis ngërëmal boromam la am moom ak yonent bi alayhi salaam moo tax bis mel ni mu mel kon kon ni gërëm naa la da nga ko xeeb ci yoon wi da nga ko xeeb ci yoon wi da nga gërëm naa la ku ne gërëm naa la. nee na ku ñu ne gërëm naa la. baat bi gàtt na. bu wax bi de gàtt na baat bu gàtt la de. waaye waaye lépp ngi na ëmb nag ci mi ngi ci biir. kon sëriñ bi gërëm na leen bu baax. sant na leen bu baax a baax. itam. nee jëf ji it. li ci gën a ñor. bi ko ci gën a ñor. mooy lii ñu jox sëriñ bi. lii ñu jox sëriñ bi mu nar ko yot sëriñ sëñ Cheikh Jëmb. bi ma nuyoo ñoom. te loolu. bu ñu nuyoo sëñ Maxtaar Diouf mais. ba mu laataa wax ak moom Fall. daal day indi enveloppe bi ne ko lii addiya je. Cheikh Ibrahima Fall. loolu la ci am loolu la ci am moom. lu mu rëy rëy te addiya amul rek Cheikh Ibrahima ci dara. am moom ma ngi ci biir moom. lu ñu jox lu mu jox sëñ Touba. moom la bëgg. te def ngeen ko loolu. kon sant nañ bu baax a baax. sëñ Maxtaar Diouf sëñ bi ne sant na la bu baax yaa ngi mbooloo bi ndax gis na taxawaay bay. ak mbir yi ni mu mel nii. ak mbir yi ni mu mel. doo doo ni mel. daawu ni mel de daawu ni mel de. Ah, ne ñëw nañ fi ay yoon de. waaye daal wax dëgg li daal mosu ne mel moom. gis na ci ak soppiku de. kon yàlla na saa borom ba gën cee dugal loxoom. ak ñi mu nga àndal ñëpp na ay e, ak soxna Soxna Xuma ak mbooloo mi. ak soxna Suwaada Faal. ak soxna yi ngeen àndal yëpp. sëñ bi sant na leen gërëm na leen. gis na seeni taxawaay. waxtu wu ne. seenu dox seenu dox. kanam la jëm kanam la jëm. waaye jëmul gannaaw loolu sëñ bi ne mën na koo seere. nee mi ngi sant it nag. ki fi woon léegi. di ministre Mbaye Ndiaye. ndax moom kilifa réew mee ko yebal. ndaw nag ndaw nag. dara jëye ka ko yebal lay indi fa mu dem. kon nag gis nañu taxawaayam. ak li ñu ko yónni. ak kim ñi mu àndal. ñoom ñëpp gis na taxawaay yi dana ko jottali sëñ bi it nag mais bi mu ñëwee it fekk na fi rakkam sëñ Saliou Fall doomu Cheikh Moustapha Fall mooy mi ngi ci liggéey bi moom rek doyoon na fi bu teewee rek teewoon na ñëpp waaye sëñ bi bëgg gu mu bëgg yëf yi bëgg bi sub Cheikh Ibra bi moo tax ñëpp ñëw waa kër sama baay Modou Mbend ñëw na. kër Cheikh daal kenn desul ak kër Cheikh Ibrahima Xadeeg. ñëpp a fi teew war benn yoon. am di xadim sëñ Modou Mbend it ñëpp ma fi ñëw. waa kër ma ngi fi teew. Serigne Assane Fall. wax bu yàgg moom ñëpp moom kay xanaa waa kër Cheikh Ibra yëpp a ngi fi daal waaw. waaw moom moom ñëpp a ngi fi rek. waaw waaw. waaye daa bëgg leer rek ñi fi ne moo tax ñu bind liste bi. nga xam ñoo jiite bis bi. nga xam ne ñoo jiite bis bi. nga xam ne ñoom da leen ñor lool. moo tax rek mu doon mu doon tudd seen tur. loolu la ciy jublu rek waaye moom xam na leen gis na leen nit nag fu sëñ bi teew rek teewal nañ ñëpp kon sant nañ bu baax yàlla sant nañ bu baax a baax na ngeen ci am ngërëmal sëriñ bi ngeen yàgg a woote ngeen yàgg a woote yàgg a wuy si yéen mbir mi gën di yokk rek ah mu yekkan na gën a yokk yaataan ak jàmm jërë ngeen jëf tàll leen loxo yi sëñ Ibrahima Thion